di leen sant ci seen teewaay di wax rekk ne Sénégal dafay dund ay jafe-jafe depuis bi nga xamee ne président Macky Sall wax na ne du dem ci troisième mandat am na ñu njort sax ne est-ce que nekkut di fayonte ak askan wi ndax li ñu ko puus xoñoñal ko sës ko ci miiru wis bi ba moom Macky Sall dellu ginnaaw ci projet bobu mu du di projet def 3e mandat waye li am solo moy li Sénégalais yi di dund ni yàgg na mosuñu ko dund sax mënees na wax ci régime Macky Sall musiba yi luubal yi ak naka sudut da gëna yok waye nak ñu dem ba dom laq dañu ko utiliser ci gouvernement bu président Macky Sall mën nañoo wax ne mode de gouvernance la juróom benn weer dong moo fi desee président Macky Sall waaye suñu xel tey na ci ban Sénégal la ñuy am fii ak juróom benn weer ndax nit ñi sonn nañu nit ñi jaaxle nañu nit ñi ragal nañu waaye nit ñi lott nañu jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel bi ci njëkk mooy rëbb gi ñuy rëbb opposition bi di leen rëbb utiliser gendarmerie ak polis waaye yegg ba ci di jël ay nit di leen sible ñu gis ci loolu ne ñi ànd ak président Ousmane Sonko ñu ngi leen di rëbb rëbb goo xam ne jéggi na dayo te loolu ba ñu ko gëjee gis daanaka ci jamono ay maam la ca ginnaaw loolu nag

ku ne xam na ne dafa nekk ci grève de la faim parce que jàpp na ne li ko teg injustice la Demna, ba mom dundam Ousmane Sonko nek na ci xottu gerte li ñuy wax pronostic vital engagé ba tax ñu ngi ñaan président Macky Sall mu bayyi Ousmane Sonko ci kasso bi mu ko tej bi yoon ñu ko koy ñaan ngir yalla ci njëkk parce que tout simplement buñu ñu jëllalee wàlli politique dunduk Usman Sonko buñu ñu sukkandikoo ci kaddu yi jóge ci ay avocatam dundam tey ji cate na lool ñu yaakaar ne ci sama conception man bo nekkee président de la république da ngay yaatu dënn bo nekkee président de la république di nga dégg lu la neexul sa njaboot dina dal si sa kaw waaye da nga am obligation yow président de la république pour njaboté ñëpp pour protéger ñëpp nit mun naa bokk ci njabot gi def sudut non waye yow président de la république ci sa mbax war nga ko mëna a delloosi tegaat ko ci rang yi bu féké né nak dem nañu ba dundam nara dess ci situation bi kon motax ñu encore une fois di talal loxo président Macky Sall ñaan ngir mu bàyyi président Ousmane Sonko ndax dundam fi mu toll nii mu ngi ci xottu gerte politique nag bu ñu demee ba mu weesu jëflante mën naa doon ku nekk wax li mu xalaat mun naa doon xëqante waaye bu ñu yeggee ba ci mbañante loolu beneen